alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa nabiyina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa taslima bokki sénégal bokki jullit yi bokki àdduna bi yëpp tabaarakallaahu su ngeen gisee jotaay bi tey am ngeen war a xam ni am na lu xew wala am na lu ñu bëgg leeral askan wi mu mel ni nag ñu ngi fii Thiès ci kër kan cheikh na cheikh Abdoul Aziz dara xalifa cheikh na cheikh Saad bu mbokk yi àndandoog jotaay bii ci teewaay bi nga xam ni kenn du leen ko wax ndaxte nag ku ne xam na ni ñi nga xam ni ñoo toogandoo fii ci saal bi di jamaatu nasri tariqatul qadriya ñoo fas ne ànd ak sëriñ bi ci déclaration bi nga xam ni mi ngi fas yéene jóge ci làmminu kan ki nga xam ni mooy xalifa cheikh na cheikh Abdoul Aziz dara mbokk yi ki nga xam ni mooy xalifa cheikh na cheikh Saad bu muy cheikh na cheikh Naama xalifa cheikh na cheikh Abdoul Aziz xalifa cheikh na cheikh Saad bu mbokk yi kooku nag moo fas yéene waxtaan ak adduna yëkkati ay kaddu yoo xam ni bu ñu xerawloo te teewlu rek dina leen wax incha allah point de vue ci réew mi. waaye ak point de vue am ci jamono ak activité yi mu làmboo moom cheikh na cheikh naama yàlla na yàlla guddal fanam ak ku ni amin salaamu ala ashraf almursalin wa ala alihi wa ashaabihi tayibin altahirin alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi nuyu mboolem askanu jullit yi ci àddina bi yëpp rawatina nag waa Sénégal euh, di leen xamal ni tey jotaay bi li ko indi mooy dañuy waxtaan ci diine waxtaan ci diine bi mooy feebar bi nga xam ni yàlla indi na ko ci àddina bi muy balaa bu yàlla yónnee ay jaamam te moom moo leen moom nag fu ko neexee yónnee leen balaa ak fu mu ko neexee ba heure bu ko neexee mu dakkal ko ñu ñaan xam ni première vague corona bi fi amoon feebar yi bëri woon na mais dee bi bariwul woon mais deuxième vague bi seet nañu ni dee bi bëri na kon dañuy ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla teggil waaye jënd ñaan euh, kilifa diine yi ak kilifa aada yi que bi yoon xeex bi duñ ko bàyyeek ngóor gi rek ñun ñi kilifa diine duñ ko bàyyeek kenn nañ ci xeex suna waar bay ci suna waar parce que sunu njaboot ñoo fi nekk umma islaam yi moo fa nekk doomu aadama yee fi nekk te lépp lu leen lor duñ ko nangu nañ ci waslu sunu àq di ñaan imaam yi ñu def ci xot ba ci jàkka yi dinaa kilifa diine yi ñu njaboot ki waxtaan ceeg ñoom parce que yaakaar nañu yàlla subhaanahu wa taala moo jëkk ni wala telqu bi aydiyakum ila yi bu leen def lépp li nga xam ne dina leen alak mbaa mu rey leen kon dañuy sàmm sunu bopp parce que yàlla moo ñu jox sunu bopp dénkaat ñu sunu bopp euh, ñuy ñaan nit ñi taxawu ci geste de barrière yi nga xam ni war nañ ko def te ginnaaw loolu dañ ciy jàppale nguur gi bu baax a baax parce que yàlla subhaanahu wa taala ci boppam moo ni atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum topp leen yàlla dégg leen yàlla dégg leen yonent bi topp leen yonent bi wa ulil amri minkum ñi nga xam ñu yor seen mbiru àddina dégg leen ngeen topp leen te rasulillahi alayhi salaatu wasalaam dafa ni taatu sultaani taati wa isyaanuhu isyaani yi déggal nguur déggal ma la déggal buur déggal ma la weddi buur weddi ma man la kon dañuy daal di tënku ñu ñëpp taxaw ci loolu loolu war nag comme tey man ak waa jamaatu nasri tariqatul qadiriya ci turu président national Papa Dione gàmm gi doon amal le 5 le 6 le 7 février ñu daal di koy dàq ba jimi jamono parce que ñaanu yàlla lool lool kenn te yàlla subhaanahu wa taala dafa am lu teg suñu kaw ndodd la yutimma imaanu ahadukum xata yuhibba li axihi al mumin ma yuhibba li nafsihi sa ngëm ci yàlla du mot fii ak li nga buggal sa bopp bokkul ak bëggal sa mbooloo mbooloo mu jullit kon dañuy ñaan di leen xamal ni sunu gàmm googu jëloon nañu daat bi ba pare waaye ajaat nañu ko ba jimmi jamono ba yàlla indiwaat jàmm yàlla indi salaam yàlla indi wér ginnaaw loolu ñuy ñaan ci jullit yëpp ak képp ku dul jullit na sarxe benn kilo suukar ak kilo ceeb doomu aadama bu nekk borom kër bu nekk na ko def yóbbu ko ci jàkka ya ñu ñaan ci imaam yi xutba ajjuma yi nañ ci yénn ci wàllu feebar bi man bëri naa mbooloo fu nekk fan yi maa ngi nekkoon waalo nekkoon naa jolof waaye li nga xam ne mu ngi dee doomu aadama yi bëri na ku ko wax ak ku ko waxul am na kon yàlla nañu yàlla teggil musiba bi teggil ñu balaa bi teggil ko Sénégal teggil ko mbooleem réewu àddina bi parce que wax dëgg yàlla dee moom bu bëree doomu adama day tiit parce que doomu aadama bañul ku dul dee te dee nag moo ko yóbbu ci yàlla kon dañuy daal di wëlbatikuwaat ñaaxaat taalibe yi di leen jox ndigal nañu jàppale nguur gi ci xeex bi nañu jàppale kilifa diine yi ci xeex bi ñoom ñëpp nañu respecté gest de barrière yi borom kër amul ku dul njabootam bu demee bàyyi njabootam njabootam torox waaye njaboot it amuñu ku dul seen kilifa kon bu ñu demee ñëw itam bàyyi seen kilifa seen kilifa sonn seen ginnaaw kon nañu sàmmaat sunu bopp sàmmaat sunu diine topp yàlla topp sunu Seydina Muhammad nañu seetaat sunu bopp parce que subhaanahu wa taala ñun ay jaamam lañu amuñu kenn ku dul yàlla kon nañ topp yàlla topp sunna seydina muhammad topp lu baax bàyyi xalqalatul lisaan parce que lu bëri dañuy wax ni boroom xam-xam yi lisaanu ko ësadu ko sa làmmiñ mooy sa gaynde bi lay lekk kon làmmiñ bu fekkee ni téye nga ko amaana lu bëri du la fekk ñuy waxaat ku nekk bu mu nee def laa ilaha illallah téeméeri yoon ginnaaw bu jullee suba ak téeméeri yoon ginnaaw bu jullee timis na ko def ñu jàppee ko ni euh, Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam moo ni zaakiru laa yusaab kuy tudd yàlla masiba du egsi sa kaw sarax ma lay wax rasulullah alayhi salaatu wa salaam moo ko wax mu ni sadaqatu tarfaul bala sarax day dàq bala wa tazidu fil umr day yokk gudd fan ñu raajaat rasulillah la mooy sarax mu ne sadaqatu shay'un ajib sadaqatu shay'un ajib sadaqatu shay'un ajib sarax lu yéeme la sarax lu yéeme la sarax lu yéeme la والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما تعاقبت حركات الكون وسكناته والسلام